إذ ناديته بيا ولي أيا سمني لو هند ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي créateur Leeri TV ak Info 7 TV ñoo ngi fii ci Mbacké Mbayar diggante ak Doyoli un kilomètre la nekk dëkkub Serigne Mahamadan Mbacké mu sëñ Abdou Dia Mbacké Doyoli fii la ñëw fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bi ci moo xam wàññu la wala programme kër gi ni muy doxee ak yi ni kër gi fi nekk yëpp fàcc nañu ànd ak yéen incha allah danañ fi ñëw liggéey fi jël sëñ bi ak programme waa kër gi yëpp ba ngeen ñu toppee ñu duggeen ci biir incha allah jërë ngeen jëf الدهر ما ينبع لرب خبر قال asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu te di la dalal bu baax a baax a baax ah, loolu de boo ñu ci laajee des na ci man a wax lu bare bare lu jëm ci waañ bi ak lu jëm ci daayira bi ndax eh, ba ñuy tuut tànk la ñu sëriñ bi jëloon jox ñu sëriñ Mahmadan Mbàkke mais nga xam ne sëriñ Abdou Dia Mbàkke Dooli mooy waajuram kii ni sunu wet nii mooy sunu mag di sunu lépp ñu bokk benn baay kon boo ñu laajee lu jëm ci waañ wi des na ci sawar lool ak li nga xam ni daayira bi doxee des na ci sawar lool incha allahu taala. mel ni organisation bi. moom loo mën di gis lu nekk ci yoonu Mouride daa am njiit euh, njiit li nag dafa nekk ki nga xam ne bu dee ca boppam mooy Serigne Bassirou Niang mi mooy njiital jëwriñ yi ki ci topp mooy Serigne Cheikh Abdou Ndiaye ñun mi ci topp dinaa leen gunge ak ñeneen ñi ma àndal bu dee ci jigéen ñi soxna ku ñuy wax soxna Fat Seck mooy njiit li ki ci topp euh, soxna Koumba Thian mooy njiit li ki ci topp soxna Sukkay Niang mooy njiit li loolu mooy organisation bi nga xam ne moo war a lii mën a am waaw daayira bi ni muy doxee mooy dañuy def at mu nekk góor dana joxe ñaari junni jigéen it dana joxe junni waaye loolu it dañ koo def ngir tàmbali bis bi rek waaye am na ñoo xam ne li ñuy participer sax mu ëpp li ñuy teg suñ demee ba ba màggal gi teru ñu baree bari dañuy jaayante loo xam ne bii daanaka mu ëpp li ñuy teg fuuf loolu moo waral organisation bi mu demee nii. waaw incha allah kon leen dañ leen di ñaanal rek ci barke bis bi euh, at mi di ñëw bu ñëwatee ngeen yokk ba xam ne bis bi jar na ñëw ndax xam naa ne euh, bis bi moom sëñ bi ñu koy defal jar na jógee euh, gànnaar ba fii nga màggal si ko ndax xam naa ne sëriñ bi gërëm na ko sëriñ tubaa gërëm na ko ñun ñu àndal gërëm nañu gërëm lool nag yàlla lañ sëriñ bi yóbbaale. man maay njiital daayira sëriñ Mahmoudan bi maa yor kàddu sëriñ bi it ki topp ci man muy Cheikh Ndiaye it nga xam ne moo ma yoral lu bari ci liggéey bi ki ci topp it muy sëriñ Xaadim Ñang mii di sama rak ak sëriñ Mor Kanji mii ak sëriñ moor Ñang ñoom ñëpp rek ah, li waral barab bi mel nii it des ñu junj lu bariwul ndax màggal gi ñu fi njëkk màggal buñ ko seetee biñ fiy dikk dañoo yendu rek ca ngoon ñu dem mel na ni kero it benn cin mbana lañ fi taal ak benn gàtt lañ fi rey te léegi ñu ngi dem ba day rey ay ganaar ak i gàtt ak nag kon mel na ni bis bi mi ngi yokk boobu it kër gi ay kii la doonan li waral mu mel nii it parce que fab donga yi rek moo ko waral ak it ku baax ki fi nekk nga xam ne am du neen moo ñu may lii ñu am ndax miir bi biñ koy tàmbali sëriñ bi daa joxe ndigal ne kenn ku nekk rek daa bëgg weeru dee mu jaayante ñaar téeméer bu ko defee bu bu demee ba mu compte gi am dara rek ñu ñu tàmbalee ko liggéey bi ci lañ miire miir bi nga xam ne dem na turu allahu la koñu kër gu nekk ak moroom ma doon muy allahu juróom benn fukki mètre ak juróom benn. léegi ñu ñëw ci màggal gi ak daayira bi ko sos. daayira bi moom mën naa ne la daanaka ba kër gi sosoo rek la sos waaye nag nii muy doxee moom ci nekk ak sëñ Moustapha moom sëriñ Mahamadan mii woot sëriñ Mahamadan ci la daayira bi tàmbalee doxe nii muy doxe euh, euh, euh, waa wàllu liggéeyu kër gi ak mbooleem yittey sëñ bi rek ñun daal daayira bi daal dañ koo def muy matérielu sëñ bi nga xam ne saa sëriñ bi soxlaa rek ñëpp maase jóg loolu daal mooy liggéey bi waaw yooyu kàddu mooy li sëriñ Xaadim waxan rek muy sëriñ Abdou Dia dafa bokkan ci mag ñi deman gànnaar euh, bokk ci it ñi Sëriñ Tuubaa yebalan fii ndax fii mi ngi koo fi yebalan 1912 bi mu fi jóge bi yi Tuubaa ji eggee it la la ko Sëriñ Faliilu woo mu bàyyi ci këram gi nga xam ne moom la dëkke woon Sëriñ Mahmoudan mu nekkal ko fi ba mu jóge fi Sëriñ Moustapha nekk fi moo ki rakkam ñi ngi koy ñaanal nag mu yàgg fi lool te ànd ak ak wér ak mboolem taalibe yi yéen it ñu ngi leen di ñaanal bu baax ak yokk ak ndam ci barke Serigne Touba barke Serigne Abdou Dia Doyoly maa ngi sant nag mbooleem yéen ak mbooleem ñi nga àndal rek ak mbooleem sama rakk yi ma àndal ak sama mag yi ak mbooleem mag yi kër gi. waaw. lan moo waral sant kër gi li waral li waral sababu kër gi sëriñ bi dafa njëkk a sanc Doyoly bi mu sancee Doyoly sëñ Abdou Dia Doyoly bi mu ko sancee. bi mu doxee ab diir am jafe-jafe nit yi adduna yi bi mu jafee bi mu amee jafe-jafe nit yi adduna yi ku ñu wax yëli manal moo yoroon kantongu jurubel bi nga xamee ne yàlla dogal na mu yëg ko mu ne ko boo nee di say néeg rek fi nga nekkan boo toxoo rek toxalee néeg yi rek ma génne li kantong boobu dugal la ci kantongu Mbayaar bi mu ko dugal bi mu ko génnee ci bi mu toxalee ay néegam ñëw fii eh, ki lañ ko ki la ko yëli mën a dugal ci mbayaar nga xam ne looloo génne sëñ Abdou Dieye ci région Kayal dugal ko ci région Diourbel ah bi mu sancee fii nag mu ne gii Mbàkke moom ci mbayaar la looloo waral turu Mbàkke mbayaar waaw looloo war fii war naa def ci ay juróom-ñett fukki at nangam ndax ki fi gën njëkk gane ay jamono ci ay doomam nee nañ ma Serigne Bara Doli Mbacke moo fi njëkk a ganee jamono te Serigne Bara Doli mi ngi ci ay juróom ñett fukki at ak nangam kon mel na ne am na diir. ginnaaw ba nu sant yàlla sant Serigne Mahmadan Mbacke sant sëriñ Moustapha sunu sang bu baax bi di leen xamal ne màggal gi ñoo ngi am kontaante bu baax ndax at mu jot ñoo ngi ci gis yokkute bu baax ndax at mañ koy door booba sëñ Mahmadan Mbacke sunu sang bu baax ba moo ñu fi yebal. ñu ànd ak soxna Faat Seck soxnaam si ànd ak sëñ Basiiru Mbàkke doomam ja wàccub liggéey yal nañu yàlla taas ci barkeem ànd ak sëñ Baara Doli at moom sëñ Baara Doli fii la màggale ànd ak sëñ Mamour Mbàkke yal na yàlla yokki leeram te taas ni ci barkeem léegi màggal gi ñu dem ba nga xam ne booba benn ci nu ceeb lañ fi taal sëñ Mahamadan booba benn cin ceeb la ñu jox ak benn kaset tomate ñu dem ba léegi ñu ngi ciy gis yokkute ba dañu taal juróom-ñetti cin te du doy. ñu daan rey benn gàtt léegi ñu ngi rey nag daaw rey na ñaari nag ren ji ñu ngi rey nag ak juróom fukki ginaar kon ñoo ngi ci gis yokkute bu baax a baax di santaat sëriñ Mahamadan suñu sang bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te lépp ànd ak wér. waaw soxna Fatou Seck at moom ma lay wax booba moom moom lañ àndal mu suñu jëwrin yàgg ak ñun lool ci waañu ñu di ko ñaanal fan bu gudd lool te mu ànd ak seere yu ma xam ne soxna Faati auzu billaahi mina seytaane rajiim <coughs> bismillaahi rahmaani rahiim ba ma sant yàlla ay yonent bi sant Sëriñ Tuubaa sant Cheikh Ibra sant sama ñaari waajur di sant sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal moom nekk Sëriñ Tuubaa mu yàgg fi loolu ci wér ah di sant sëñ Moustapha Mbàkke mi xalifam sëñ Magdadal ak moog waa moog waa këram di sant soxna Faati mi soxna Faati mi seen tan danoo mas man damay kóllëre boo gisee ma ñëw ci bis bii kóllëre laay mottali ndax sëñ Mahamadan mi moom màggal gi daa dëkk ak nun def noo xam ne benn lu muy def lu ne danaa waa kër Mbay Saar nañ di ko def dina yóbbu Poroxaan dina yóbbu fu muy dem xel koom dina yóbbu ba bi mu fi jógee bàyyi fi sëñ Moustapha Mbacke mi bu doon xalifa bi boole maag jëwriñam ji di soxna fa Seck ak soxna maa Asu Mbàkke mii suñ njiit yi soxna Jaara di suñ njiit yi suñ Moustapha Basiru nan koy ñaanal moom di suñ jëwriñ yan koy ñaanal suñ borom yàlla euh, guddal fanam yokk pas-pasam ak yéeneem këroog laa daw ba léegi <coughs> jóge na fi dem Poroxaan booba daayira bii suñ daayira boobu sosoo gudd ñun ñi suñ daayira bopp ma ne soxna Faati segam seen lu muy def ñun lay ciy jiital kon nan yëkkati day def soxna jaara foofee lañ ko fase ba ma ko waxee moom mii da cee kontaan ànd man ñu wax ko sëñ Moustapha wax ko soxna Astou booba tey muy daw ba léegi xeebuñu ma defuñu ma lenn léegi nag li may ñaanal rek lii ñuy liggéeye sëñ Tuubaa bi ñuy liggéeyee yàlla na suñu borom may ak dal ak kàttan ñu koy yeggalee ca yàggal ci moom mii nag moo fi Cheikh Mame Madane ndax ñu mee dem àndaloon yëpp dañ koo bàyyee lépp mu nangu njiit la jiite lépp woyof tooy nag fu ko ne jógal mu jóg fu nga toogal mu toog ànd boor doomam yii nag ñëpp la yabale ñëpp a yem ci moom taxaay bi mu taxaw daal ñu ñaan ci yàlla ak barke bis bii ak Cheikh Mame Madane na yàgg ca sax sax sax dàq boole ko wéer ak wéede ak mboolem ku Cheikh Mame Madane jiite ak julli yeeg taalibe yëpp man yaa seen géy maa leen baax ñu doon taalibe sa jàbb ja di wuyoo ci ndigalu sa jàbb ja ak sañ dan ak sant ak ñun nag alaaji sëriñ jañ mooy suñu kilifa ñun ay dongo rek lañ di taalibe kër gi di ñaan luñ fi def réwén bu déwénee ñu defalu ko ci darajay yàlla ak yonent bi sëñ Tuuba ak sa jàbb ja ak sëñ Mahmadan sëñ Moustapha nag ñu ngi koy ñaanal Mbàkke Balla mu yàgg fi lool te wér ndax tubaarkàlla macha allah lépp lu baayam daan dox macha allah mi ngi koy dox ñu ngi koy ñaan sut baayam bu baax ba fan de barke bi ak njabootam ak waa kër gi atub sëñ Abdou Dia bii nag ñu ngi ñaan lool yàlla saafara ñu fi defal ñu wér defal ñu jàmm defal ñu tawféex ak gudd fan ak wér gi am bañ am kàttan guñ ko liggéeyee ak doole ak xéewal ci barkeb Sëñ Abdou Dia waaw. waaw. waañu daal ñu ngi ci xeetu manay rek. tubaar kàlla masala bi suñ paree nag jëm ci reer bi lépp Sëñ Abdou Dia Mbàkke boroom du yooli nan ñaan daal mu yàggal sax. te barke topp ñu ci ak xéewal ak jàmm ak wér. ban daayira la ak fan la ji daayira sëñ Abdou Dia Mbacke waaw ñun daayira sëñ Abdou Dia Mbacke lañ wax ñun ñi ngi jaareem la njaareem Jurbel karalaaji Mamadou Dieng sopp sëñ Mahmadan di jaruñu sëñ Mahmadan Mbacke sëñ Mahmadan nag mooñu boole booleeg sëñ Abdou Dia waaye tubaarkàlla macha allah ñu ngi ñaan gudd fan ak wér gu bi mooy seen déedéet yaatu na yàgg na fii moom yàgg nañ fee daagu macha allah. ak Info ba tey ñoo ngi fii ci Mbacke Mbayar tey nañu taxawat sët yi nga xam mooy sëti sëñ Mbacke sëti sëñ sëñ Mamadou Dani ak sëñ Fallou ñu taxawat suñu kilifa gi ñu bàyyi ko mu nuyoo. asalaamaaleykum sama mbokk taalibe yi jaajëf jàppan jàppan jaajëf si ñëw bi ngeen teew fii ak sama mbokki bopp yi taxaw suñu ginnaaw ñu ngi leen di jaajëfal. en fait màggal gi ñu ngi sant ñëpp ñu nga xam ne am na yitte ñëw fi ak seen teewaay fekkee mataw sant nañ ñëpp kontaan nañ si taxawaay màggal gi ndax képp ku xamoo si Abdou Dia xam ne ku fonkoon sëñ sëñ bu mag bi la tey bis suñu ñëwee dañuy ñëw di ko ñaanal di ko ñaanal di ko fàttali démbam jaayanteeg sëñ bu mag bi parce que moo jaayante moom ca gànnaar ba ba sëñ Touba ne ko Cheikh Abdou Dia gërëm naa la sëñ Touba gërëm na la yàlla gërëm yàlla gërëm na la yenent bi gërëm na la mu ne ko loo bëgg mu wax ko ñetti yoon mu ne ko damaa bëgg lu ñu tànn mu ne ko dañ la kaa wax wala lu wala dañ la koo wax loo mu ne ko maa ko waxal sama bopp mu ne ko lu ñu du jafe du jafe waaye may naa may naa la lépp loo xam la sa gën lépp loo loo gis bu sa gën may may naa la koy Abdou Dia lu ñu tànn du bari loolu moo waral ñu koy fàttaliku ñëw fi suñu teewaay di fàttali suñu maam ju baax jooju te moom nga xam ne ci nabi gor ñi la bokkoon bañ ne ko moo bokkoon ak suñ moo suñ fàllu benn néeg moom nañ boole woon moo moo suñ moo soxna ak si siñ Modou Moustapha ak siñ Fallou ñoo bokkoon benn néeg si siñ siñ Fallou ak si Abdou Dia bokkoon bokkoon benn lal siñ moo soxna maam maam Mor Diarra ak siñ Modou Moustapha bokk benn lal bañ demee Gànnaar tamit bind ay kaamil la mu doon liggéeyloo ak tarbiya bañ na ko bii ñëw foofu la làqee foofu la amee mu suñu borom foofu foofu ca gànnaar fa la amee ngër mu suñu borom ba njabootam yëpp nekk soo xoolee këram këram gu mag gii jàkkaarloog jumaa ji nga xam ne liggéeyal na Serigne Touba. li ñuy wax nee nañ sën nee nañ sën du romb ëtt loolu moo ko waral soo demee ci këram gee rek xam ne suñu mag bi boole woon na ko si ay njabootam looloo tax ñu ne suñ teewaay fii ñu koy fàttaliku di ko sant ndax moom mooy suñu buntu suñ Touba lépp lu am rek si moom la. màggal gi ndax cosaan sëñ bi fi ko fekk wala ak kañ ko sëñ kañ ko commencé màggal. gi nag sëñ bi bàyyiwu ko fi doom yi bàyyiwuñ ko fi. ay taalibeem ñoom ñoo xool ba xam ne sëñ bi war nañ koo delloo njukkal moom mu ñu boole ci sëñ Touba parce que sëñ Touba moom moom la ñëpp am yàlla suñu borom ñun mu wàccee ko si ñun. kon ñun nit ku ñuul amut lu mu war a fayee suñu borom sant ko rek lañ ko waree ndax soo xoolee réew yéew yëpp soo xoolee yeneen yi daanaka ay naar lañ. ay arab lañ sëñ Touba yàlla su ko indee si nit ku ñuul dawat na mu indi ko Sénégal ko war nañ cee profité origine màggal gi ay taalibeem ñoo ko jumoon di ko fàttaliku ci si Abdou Dia ñu di koy fàttaliku ñun ñëpp daan ko defee kër gu mag après si Saliou mu si Abdou Dia ñëw ne nañ ko defee Diyoli ñëpp ñëw fa di ko defee Diyoli pour fàttali ko. en tant que jigéen sori la ñuy préparé màggal gi ñoom en tant que doomi soxna di nekku jigéen mm. war nañoo tënku ci diine ak lislaam suñ ñëwee ñu bàyyi yu bari dënku la sa maam wax la suñu maam bi bàyyi woon ci jàng xasida wérd ñaanal ko parce que loolu mooy yitte gi lépp neex na lekk gi neex na naan gi neex na booloo gi neex na mais am na lu ko ëpp solo muy ñaanal gi ñu ko war a ñaanal tax loolu moo koy jëriñ fekkee nañ fi dajee tamit te ñaanaluñ ko xàq taay reetaan daanaka mën na wax ne kenn ku ne mën ngaa toog sa kër mais suñ fi dajee pour ak mbokk la akub jaamu yàlla ak liggéey parce que moom loolu rek la nekkoon xamu woon caaxaan. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu eh, mbokk yi taalibe yi di nuyu sama rakk sama mag yi fi teew di nuyu mbokkum bépp mbokkum taale boo xam ne wuy si nga ci ci ci màggal gi. Ah, fii nekk nag mu ngi tudd Mbacke Mbayar sëñ Mahamadan mu sëñ ab Dia moom moom la fi sëñ Abdou Dia ah, ndax duyool yi digganteem ak duyool yi matut sax un kon diggante bi daanaka benn la sëñ di nag moo ko joxoon ndigalu mu sañc fii waaw ginnaaw bi bi mu fi jógee nag sëñ bi daan koy jox ndigalu mu sañc Touba. Ah, màggal gi nag li ko waral mooy. Euh, dëgg la sëñ Abdou Dia bàyyi ko fi waaye initiative mi ngi jugee ci sëdi sëdi ñoo dem ba gis ne kenn ku ne wax dëgg yàlla yaa ngi màggal sa maam te sëñ Abdou Dia ku ko xam ci ci ci yoon wi ak li mu sëñ Tuubaa xam ne bokkoon na ci ñi nga xam si ni ñoo ko fekkoon gànnaar jaayante ga te boobu gànnaar gu dem da ngay dox am ci yoon ay bokk na ca bind kaamil ba yaakaar naa boobu sëñ Fall ci la bokk euh, ak moom ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen ba mu paree sëñ Tuubaa gërëm ko ba ba ba defal ko li ko defal tey lim defal ay li mu defal waa këram defal ko cheikh yëpp loolu sax bokk na ci li koy firnaal mooy li koy firnaal mooy boo demee tubaa kër Sëñ Abdou Diaga ma nga fa doomi euh, kër Sëñ Touba yi nekk moo uuf jumaa ja Sëñ Touba neewoon na ko sama doom nga xëy na waajuróom bu jigéen euh, Sëñ Touba moo ko yoroon ginnaaw bi la ko joxee ne am na ko ci weer feeñ koo xam ne xëy na waruma koo jur ci deret waaye maa koy jur ci ci ci ci ci ci saahir ak baatin loolu nag euh, loolu mooy Sëñ Abdou Diaga ci gàttal ku jàmbaar la woon Euh, jàng alxuraan jaamu yàlla bëgg lu baax loolu bëgg sëñ Tuubaa wax nañ ne sax bokkoon te ñi nga xam si nii euh, maanaam murid yi nga xam njëkk nañu am oto ci ci ci ci ci ci Touba di maanaam di di def ay matt ci oto bi di ko yóbbul sëñ Tuubaa bi mu nekkee gànnaar loolu yëpp bokk na ci liggéeyam. kon tey loolu nag moo tax tey ñu koy fàttaliku di ko ñaanal moom sëñ Abdou Dia liggéeyam ma xam se ni euh, daana ko def ci àdduna yàlla ko sëñ Tuubaa fayal te nangul ko ko. sëñ Mahamadan it gis nañ ne moom sëñ Mahamadan sëñ Abdou moo ko boole ak sëñ Basiru ginnaaw bi sëñ Basiru maa def suñu soie ginnaaw bi ba li ci xew yëpp xew ci ba xëy na euh, dugalante bee gé maam be bee gëllante bi xay na jigéen dugg ci euh, jigéen jóge ci kër si Mahamadan dem ci kër sëñ Moussa Basiru euh, jigéen it jóge ci kër si Moussa Basiru ñëw ci kër si Mahamadan ba tax na tey jii sët yi daanaka man mii ci sët yi laa bokk sëñ Moussa Basiru sama maam la sëñ Mahamadan sama maam la waaw ah, loolu nag day wane jaxasoo bi ñu jaxasoo ginnaaw ba ginnaaw ba mbokk ak direct jàllee mbokk saaxir ak baatin gi moo waral tey ñuy tax taxaw fi di wax waaw loolu nag moom euh, moo euh, moo waral màggal gi màggal gi nag comme comme li ñu ciy xaar mooy màggal yëpp berne ak euh, maanaam jaamu yàlla ñaanal sëñ Abdou ja ñaanal sëñ Mahamadan li nga xam se ni moom la doon liggéey sëñ Tuubaa ci àdduna sëñ Tuubaa nangul leen ko ñu gis ko foofa. mel neen bi yooli ku ñëw xam ne am na yoo soxla na mooy ndox ak courant. Hmm. ndax dëkk bi. ñu am na fi wala am ak loo xam ne ñu ngi koy soññee njiitu réew yi nga xam ne ñu ngi fi waaj la ak loo xam ne mi moom am na ndox am na courant li ñu jàmbat rek ñëpp mooy aw yoon aw yoon daal la ñu jàmbat ndax yoon wi raaraan la depuis depuis yàgg ñu ngi dig nag naan dañu ko tali dañu ko tali waaye ba ko comme ni ñu talee dëkk doomi sëñ Tuubaa yëpp parce que dee ni ma leen ko waxee doomi sëñ Tuubaa la comme kon bu sañoon dëkk euh, dëkkam bii mu am tali ndax yelloo na ko ku ko gis këram nga fa mu nekk ak ku xam sëñ Abdou Dia xam ne dëkkam bi yelloo na am courant euh, am tali kon ñoo ngi soññaat président Macky Sall mu defaroon ñu fii courant euh, mu defaroon fii tali ginnaaw bi xam se ni suñu borom dimbal nañu am na courant am na lépp waaye tali daal soxla nañ ko ak hôpital bu mag boo xam se nii ba xam se ni kenn du jóge duyal dem Touba wala dem dara maanaam dem Touba ngir ay soxla ay faju wala nangam ak nangam bu sañoon daal lépp lu am Touba maam diwéli waaw mbàkk mbayaar nag mbàkk mbayaar nag moom comme ni ma ko waxee moog diwéli xëy na matu un kilomètre waaye ba léegi moom ñun moom ñu ngi koy xaar ba léegi egg bi loolu ñoo ngi ci soñ président xam ne fii ak wax dëgg yàlla dara yaakaar naa ne cinq partout lamb sax xëy na ko bi defoon courant bi egg si te fii comme dëkk suñu Mahamadan la suñu Mahamadan kilifa la moom it sët la sëñ wax dëgg yàlla moom mérito na au moins courant ñu ko ko même même fekkee tali mënu fee egg si mu am courant kon loolu ñoo ngi koy ñaan nguur gi Euh, mu taxawoon ci courant bi bu baax ci wàllu maam euh, mocc Mbacke Mbayar. jërëjëf ñu bàyyi tàggatoo kon. waaw xanaa santaat rek di leen sant yéen waa Leral TV ak. ak Info 7 ci seen teewaay ci màggal gi. lii euh, wax dëgg yàlla day war ne seenu Pastef ndax bi leen ko waxee rek da ngeen da ngeen a bàyyi lépp ngay ñëw pour pour taaral màggal gi macha allah gis ñi ni ngeen ci taxawoo ak liggéey bi. ngeen ñaanal suñu Tuubaa mi tax ngeen def mu fay leen boppam nangul leen nangul leen seen liggéey ñaan yàlla bi dem ba nekk fi ñu dégg yeneen télé yëpp RTS ak TFM yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah baxda axusu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani ñoo ngi siyaare mboolem jullit ñi di siyaare itam mbooleem spectateurs yi nga xam ne ñooy suivre Leral TV ak Info 7 di leen ñaanal jàmm di ñaanal itam liggéeykat yi suñ borom gën leen a taxawu ba ay seeni seen euh, yokku ci euh, laaj bi nga ñuy laaj it ci sawar lool di ci tontu ndax danoo bokk ci kër gi te am lu bari loo xam ne itam dañ ko cee dund am ci yoo xam ne dañ koy yër ci ay téere itam mbake Mbayar nag bu ñuy wax màggal dooyooli sëñ Abdou Dia borom dooyooli nga xam ne moo fi fekke woon sëñ Touba ba gànnaar moom nekk itam doom ci boppam doomam itam Euh, bi nga xamante ne bii itam yàlla dogal na mu ñëw sañc fii def fi ñu tuddee ko Daaru Salaam Doyoli doom ji nga xam ne mooy Serigne Mahmadan Mbacke nga xam ne ñun moom lañ doon tarbiyewu moom mu ñëw itam féete fii ci Mbacke Mbayar di ko màggal moom mu doon koo xamante ni bii yarkat la woon boo xam ne képp koo xam ne yar na la soo jógee fi moom boo delloo yow dangay doon royuwaay waaye doo doonati koo xamante ni bii sax dañ lay xeeb ci dara. te loolu itam man doy naa ci firnde ndax jaxasoo naa ci fu ne waaye eh, tarbiye gi nga xam ne def naa ko ci man tax na ba bi ma demee dama doonoon ay royuwaay ndax doon na kàddu yoo xam ne daana ma ko jooyal ma sàmba ma ne ko Mbàkke mu ne ma ku jóge ci bérébu royuwaay nangay def lu ñu lay te jaamu yàlla itam daananu ko ci xiir ak xam-xam ndax li koy firndeel mooy biñ nekkee ci daara ji yëkkati na ay téere xam-xam teg ko ci suñu loxo nema ñaar yi daara jee ko moom bii yow yaa ko mooy euh, dee leen ci faral di teg kenn ko nga ci génne ay bayit ak ay euh, woy ñu di ko xam téere booba nag mën nañ cee tudd mi nanu baaxul xadim nga xam ne téere bu bari njariñ la ci àdduna ak ci àllaaxira ci taarixu réew mi itam am na ci muy mu mi nanu baaxul xadim beneen bi ci téere Sëriñ Souhaïbou beneen bi nag di tasuudu si xaar nga xam ne moom lañ naan yóbbul ndaw ñi mu yëkkati ko teg ko ci sama loxo ne bi bii yaa ko moom kon ku doon yare la waaye ku bëggoon xam-xam la ku bëggoon arxuraan la itam maanaam lim ñu tënkoon te teg na ko daal mooy nangoo liggéey ak jaamu yàlla nga xamante ne bi itam loolu lañ toppee sëñ Touba itam ndax dem gi nga xam ne moom la tukki woon it ci loolu la ko indee itam waaw ndax bi nga xamante ne bii mi ngi fi wax dëgg yàlla ci loolu nu tënk ñu nekk ceeg moom mësuñu xiir ci lenn loo xam ne itam daf ñuy def loo lun mënut wala mu ñuy sant lun mënut moom sañ sëñ Mahmadan loolu du jikkoom maanaam sëriñ la boo xam ne daal wax dëgg yàlla liggéey ak jaamu yàlla la lay sant. waaw Mbacke mag waaw maanaam li koy waral mooy maanaam euh, kër day màgg ndax kenn ku ci nekk tey jii bu fekkee ne dama nekkoon sama kër way jur maanaam ma nekk fa. ak ñeneen léegi ñoom bu ñu demee ba nga xamante ni bii kër gi yaatu na maanaam mën nga génnaat nga dem sancaat feneen di fa doxal la nga xam ne moom la sa wayjur doon doxal te du tee ba noppi du tee mbàkk mbayaar di mbàkk mbayaar du tee dooyali di dooyali maanaam kon li wolof di léeb naan lu yokk rek tasaaroo ba noppi yarkatit loolu mooy jikkoom buy defaree fii ba noppi day tuxuwaat dem defarewaat ñeneen loolu moo waraloon baanaka itam sëñ Touba bari woon dëkk yoo xam ne dëkkoon na koy tam waaw bu euh, mel yoonu murit moo demee noonu maanaam mooy sanc saa yoo koy def ci ndigal nga koy defee te loolee itam mën nañ koo jële ci histoire yonente bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne bi itam sahaaba yi ñëw nañu itam kenn ku ci nekk da nga demoon tasaaroo fenn di woote lislaam ngir lislaam mën a yaatu loolu itam moo dellu siwaat ba ci mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi itam dem na ba ci ñi nga xamante ni bii sax bokkuñoo ñoom sax tarixa dañ doon formé waat ay muqaddam di leen tasaare ci biir dëkk bi loolu moo waral nag maanaam kii di sanc fee kee di sanc fee dëkk yi bari lool ñu naan daaru nangam daaru nangam kenn ku ci nekk ne fa di fa dajale nit ñi di leen delloo si waat yàlla ngir ak yaatal. Mm-hmm. waaw li nga xamante ni bi tam moom la ñuy soññee te di ci ñaax sama bopp di ci ñaax mbooleem doomu aadama yi di wax ne itam euh, nit ki bu fekkee ne da nga jógee ci béréb ñëw ci béréb ngir di fa sàkku si dara soo fa jógee ba bi ngay dellu si waat war naa bàyyi ci yow dara loo xamante ni bii ëllëg. doo ñëwaat ñu naan lan la màggal ga lan la jariñ ci yow beneen bi itam nag ma di ko waxaat mbokki njaboot geek ñi nga xam ne danoo jaboote muy danoo jub ay élection kenn ku ne xam na ko maanaam la nga xamante ni bii mooy fal ak mooy folli wenn kayit dong la du xeex du xuloo du xeexoo du ŋaayoo du ŋaañante du waxante lu bon képp koo xamante ni bii yàlla dogal na ne moo fi war a nekk ëllëgit yàlla nay jariñal réew mi te kenn ku ci nekk bul xuloo bul xeex seetal kala neex nga dem sànnil ko saw te am yaakaar ci moom ba tax nga sànnil ko ko waaye bul ci geru bul ci gere asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di sant euh, mbooleem waa leeral TV leeral yi TV ak info 7 di leen jaajëfal bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di jiital ci nuyo bi alxalifatu général sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan sa borom yàggal ko fi loolu te wér ko ci baaxul suñ Tuubaa ñëkk lépp nañu sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli it ci nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sant yit suñu yaakaar tey ëllëg xaadim rasul ak sëriñ Mahamadan Mbàkke mi borom ëtt bii ah ñuy jottali ay kaddu ci suñu ay kaddu yu ndigal ci kilifa kër gi sëriñ Moustapha Mbàkke ak sëriñ Daal yi ak njabootu sëñ gi yëpp rek hmm? ah, ñu dajee fii fàttaliku di fàttaliku ak a ñaanal jàmbaar ju baax ja sëriñ Abdou Dia Mbàkke borom Daaru Diyool yi moom mi nga xamante ni mooy borom pàkk bi dëggaloon fi dëggaloon fi sëriñ Mahamadan Mbàkke di suñu waajur ah comme li nga laaj léegi rek sama sababu màggal gi balañu ñu ñu fiy ñëw euh, dañ lay wax sababu lu waral Daaru Salaam di yool yi sëriñam bu baax ba di Xaadim Rasul ba mu ko liggéeyalee ba ba ba ba yeewi ko jox ndigal muy soppi liggéey ca njaareem ne ko boo waree soow fas joxoo fas ne ko boo ko waree ba fu la waxtu tisbaar fekk na fa jàpp julli fa ñaari rakka ci tibb ci suuf si daal di ma koy indil sëriñ Abdou Dia def noonu jógee njaareem war aw fasam ba waxtu tisbaar jot fekk ko fii ci Daaru Salaam Diyoli mu laaj ñu nekkoon ca teen ba di root ne dëkk bi nu mu tudd ñu ne ko Diyoli mu ne ndax man ngeen maa may ndox ñu jàpp ñu ne ko waaw defal ko ndox mu jàpp am jàppee pare tibb ci suuf sa defee ko ne ko sëñ Tuubaa waxoon dem ba ci sëñ Seexul Xadiim ne ko ah Mbàkke waxtu wi fii la ma fekkoon ba ma ko laajee ñoo ma fekkoon ci teen ba ñuy root nee nañ ma daaru nee nañ ma du yóoli la tudd mu ne ko ana suuf si mu ne ko mi ngi nii mu ne ko foofu bokkoon nañ ci barab yi ñu ma doon wan demal nga nekk fa di jaamu yàlla ndax bu ëllëgee nga doon seenu lay sababu duyooli mu ne ko boo demee it na ko tuddee daaru salaam moo tax ñu yokk ca daaru salaam duyooli ndax nagam duyooli gi mooy turu cosaan li moo tax ñu bàyyi ko ca ba tey dëkk bi nag dëkk tawfeex la ndax ba mu fi nekkee it li mu fi daa def daana fi mbay mbayu mag a mag lu du fi mosaan génn rek ci xéwal Sëriñ Tuubaa la ko daa jox te moom yëmalutoon noonu sëñ bi dara doomi Sëriñ Tuubaa yi ba it fekk nañ ko fi wax dëgg yàlla fi daal ma nekkoon basam mu fi daal liggéey yor fi ay daara di jaamu yàlla di jàng ak jàngale loolu daal lañ xamal mu nekk ci ba dëkk bii di Mbàkke Mayaar it bokkoon na ci ay toolam ñaareel nee nañ fi la daa yendu wala léeg bu ngoon jotee mu dem fanaan du yooli mu nekkoon ay daaraam mu déglu mu dooleon fi <clears throat> sëriñ Mahmoud Mbacke doom ak sama waajur sëriñ Mahmoudan Mbacke loolu moo moo waral bu ñëpp baagsee rek ñu ne ñëw fii barkeelu ci kër gi léegi suñu baay fi la nekkoon ñu barkeelu fi rek. di leen fi fàttaliku di leen ñaanal lañ nekkoon ñu mën caa nekk loolu moo waral dëkk bii sababu màggal gi nag moom màggal gi nag moom sabab li mooy di ko fàttaliku rek bu waxtu wi dellusee ñu dee fi ndegem ci ci loolu la nekkoon Sëñ Tuubaa digaloon ko ko bu dellusee rek ñu fàttaliku fi di ko ñaanal di ko ñaanal di ko fàttaliku di jàng alxuraan di jàng xasiida di durus luñ man ci yàlla di julli yit ci nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy sabab li moo tax ñu fi dajee segg ànd rek jàng ak comme noonu ma ko waxee noonu njaboot geeg bokki taalibe yeeg ak soppeek am di jàmm yeeg yëpp loolu moo waral ñu fi dajee. réew mi toll uh-huh. ci ay yoo xam ne jamono da koy laaj saa na jëye mel nii bu amee. ñuy soñante ak suñu mbokki taalibe ak wala yéen kilifa diine yi yan kàddu ngay soññ taalibe ak fi réew mi toll jamono gis nañ xat-xat yu bëri na waaw ñun sax duñu wax fi réew mi toll fi àddina la fi àddina toll lañu wax ndax boo xoolee bu yàggul lañ génne ci Covid àddina bi jaxasoo lu bare bari ngir Israël ak bande de Gaza xeex yu bari ci àddina bi àddina bi jaxasoo di baras ak gis yi Ukraine ak Russie guerre yi àddina bi lu bare bare jaxasoo économie yu bëree bëri xaw a bafoué ah ñun nag suñu borom mi ngi defal sutura ndax Sénégal souvent ñu li ñu faral di wax day dëkk kislaay ay mag yu jaamu yàlla ba yàlla nangoo leen ñoo fi tëdd te mag yooyu seen ñaan xanaa ku li àllin day jeexital ci réew mi ba mën nañoo njort ne ñoo ñu bokk nañ ci nit ñi ñi téye réew mi ba heure bi Sénégal mën toog mën a toog di ko di ko nettali kon nag loolu dañ ci sant yàlla bu baax baax man nag sëñu maa digle. waaye nag sañ naa wax sama xalaat wala ma soññ ñi ñi ma saña a soññ ñu ngi jëm ci ay élection ah na ñëpp ànd ak dal ndax ne ngam dëkk dëkku démocratie lañ wax moom ah, citoyen yi ñoom ñoo yor seen choix ñoom ñooy dem voté ji xool ku leen neex ñu ne kii lañ bëgg mu jiite suñu réew ñu ñaan yàlla rek buñ ci àggee ngal la lu citoyen yi wax rek ak lu génn ci urne yi rek na ko ñëpp respecté ñoo xam ne lii mooy Sénégal tey Sénégal commencé wut ci ñoom tey Sénégal lu yem ci ñoom Sénégal day continuer nekk Sénégal ci ñun ñëpp Sénégal ñu mag Sénégal moo ñu jur moo ñu ëmb kon nag war nañoo mën a fexe ba góorgóorlu ba lépp luy protéger suñu république bi ak lépp lu koy aar kenn kenn kenn bañ a fexe ba li yàqoo jógee ci yow ñu fonk république bi respecté ko luwaay yi ñu fonk ko ndax ab dëkk moom ba mu loi daanaka moog moog zéro yam day bafu yi rek léppay bafu yi day yàqu ñu respecté institution yi. respecté kilifa gi yàlla ne moom la kii laa seen kanam ci bëggu citoyen ñun ñëpp ñu maasee ànd ci loolu topp ci ginnaawam respecté suñu réew ci nangoo jàng am éducation base ku nekk respecté ki nga war a respecté ku la mag respecté ko doxal nangoo liggéey ang ang surtout nangoo liggéey nag ndax liggéey moo mooy cëslaayu réew. ci fi Sénégal boo xoolee ñëw taux de chômage bi àgg na presque kenn xamul mu toll ñu naan soixante loolu lépp ñu xoolee nañ wuti nañ dem jàngi bu ñu jàngee pare ñu wuti métier nangoo liggéey ci ñu liggéey ñu ko yàq naan bañ ko yàq fonk yi suñu kilifa diine yi comme di am ci réseaux sociaux yi léegi waaw gis nga léegi lu nekk la ñuy wax loolu nag boo xoolee ñàkk yar rek koral ñàkk yar ak ñàkk xam sa bopp ak ñàkk jàng ndax euh, mënoo ñëw fekk kii liggéey li muy liggéeyal boromam def loo xamante ni kenn mënu ko wax ci dimension ci diggante boromam nga ñëw bëgg a taxaw benn jour rek bëgg na ñëpp a yem wala kii mooy kii wala kii mooy laa loolu moom maa ngi ñaan ñu gën ko bàyyi xel ci xale yi ñu gën ci orienté njaboot gi ñu leen koy gën a moytuloo ndax ni mu amee lu baax noonu amee lu bon dañ fexe xool la baax ñu koy jëfandikoo la bon ñu moytu ko ndax loolu la ñu yàlla digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon loolu muy dox di dox ba ci Sëriñ Tuubaa moom it mu digal ñu lool jàngal ñu lool ba ci suñu waajur yëpp ñu nekkoon ci lool jàngal ñu loolu kon nag nañ fexe ba ñu mujjee puso bi muy réer dañ fexe ba di ñaw lépp lu baax ñu mën koo def ñu nekk ca lépp lu bon ñu sori ko ñaan yàlla sax bañ yàlla bañ ñu nekk nekkale man daal loolu laay soññee ñi ma sañ a soññ wala yéen bu amee xalaat ci réew mi loolu laay digle nañ gën a respecté institution yi gën a góorgóorlu gën a nangoo liggéey gën a fonk am njàng xeetal xale yi ci jàng euh, ñu yar leen bu ñu ko defee bu ñu màggee dinañ gën a amaat réew mu gën a baax. ñoo ngi woon fii ci Mbacke Mbayar kër sëñ Mahamadan mu sëñ Abdou Dia Mbacke Douyoly nekk troisième xalifa ci sëñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ñu ñëwoon fi si waañ wi ak kër gi ak sëñ bi gis ngeen réaction yi nga xam jël nañ ko fi ci site internet yu mag yi nga xam mooy Info 7 TV ak Leral TV toppaloon nañ leen ko ci waañ wi ak ci jëwriñ yi nga xam ñooy yor daayira bi ci kër gi ak yenn soxna yi nga xam ñoo bokkoon nekkoon ci kër gi doon fi jaamu yàlla ak sët yi tamit nañ leen muy sët yu jigéen yi ak yu góor yi jël leen képp koo xam ne sëñ bi waxoon jël ko rek jël nañ ko mu nekkoon groupe Info 7 fii ci Mbacke Mbayar ak Leeri TV iblisa isna daytahu biya wali